Assalamualaikum wa kër mbay sal ben baat bu bes gis-gis bu bes ak doxalen bu bes man la ami ba rak ci aja jatu ba di len nuyu di len ziar di dox sen seen way di jéggalu nak bu baakha baakha baax ci gëj dugg bi ma leen envoyer photo bi ki sama rak la kumba kan la di dom ci abikan abikan mo xalé bi dafa reer réeru sax dañ ko kidnappé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 ku julli rek nanga ko ñaanal ndax ñaan bu ku nekk sa ñaan bi tombeek amin yàlla moo ko xam ku julli rek nanga ko ñaanal yéen ñëpp mi ngi ni jeeg bu nday ndaw la buy sëy yore ñeenti doomam nekk ci këram bu sëy jëkkër ji moodu moodu la noonu lañ ko yóbboo waaw ñaanal leen ku julli rek nanga ko ñaanal